الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لك متى بي بشكر وريدا يا واسعا وسعت لي بمرتدى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ين موكي انترنت ديغا خامتيني يين ني توب ساسوني سي سين تلفزيون بي سي ام نيوز تاي نيون كي باك بو سيل دي ديك بو سيل موي توبا دي ديك شيخ الحديم تاي ني فاسيني في دالال كليفه بو ماك موي سين شيخنا فال دي سيت شيخ رحمه فال kon xamna bala ñoo dugg ci laaj yi dañ koy bàyyi mu nuyoo asubillahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman jërëjëf Serigne Touba jaarama Cheikh Ibra Fall ñu ngi leen di nuyu bu baax sëñ Cheikh di la siyaar di leen jaajëfal bu baax a baax di jë di jiite si nuyoo beeg siyaar bi Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal guddi fan ak weer di ko ñaanal sëriñ Serigne Cheikh Jëmm Fall ak mboolem ñëwatu maam Cheikh ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan ñu ngi leen nuyu bu baax di la siyaare. kon sëñ bi ñoo lay sant bu baax a baax ci nuyoo bu am solo boobu kon mbokk yi nga xamante ni ñooy seetaan émission bi di seen jataay buñ bëggoon a xam kan mooy sëñ Cheikhouna Fall. lu ngeen di wax. Euh, Cheikhouna Fall di am ak ndongo la koo xam ne mi ngi nekk fii ci tuubaa euh, di doomi sëñ Amdi Yaasin Fall moom Serif Assane Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall doon ab taalibe nag fii ci Touba. ñoo lay sant bu baax a baax ci nuyoo bu am solo boobu ndax ku ne sëñ Amdi Yaasin ne sëñ Assane ne sëñ Assane ne Cheikh Ibrahima kon wax dëgg yàlla dëkk bi moom bu ñuy wax cër dëgg ci ñi nga xamante ni ñoo fi am cër ci dëkk bi ci nga bokk kon nag sëñ bi ñu seetlu ne fan yi dañoo gis ci information yi ñuy wax ne Touba dafa xaw a bëri insécurité muy maanaam wàllu xeetu agression wala jël yëfi jàmbur ñu seetlu ne loolu bu jëkk daan nañ ko gis ci dëkk bi waaye nag ci zone yi nga xamante ni dafa xaw a reculer lañ ko daan seetlu comme lu mel ni ay umul xuraa ay ay ay ngiraaneen wala côté yooyu nga xam ne si un peu ci biir dëkk bi waaye dañoo seetlu ci information yi njëkk fan yi nii ñu ne côté jumaa ji dañ fee seetlu ne léegi ay agression dafee dafee bëri lool jë ak jël yi fi jàmbur te yéen nag wax dëgg yàlla bu ñuy wax leader d'opinion yéen yéenay leader d'opinion yi ndax wax dëgg yàlla am ngeen baat ci dëkk bi te am na yoo xam ne suñ ko seetloo ci dëkk bi yéen boo leen ko waxee xëy na nit ñi dinañ ko dinañ ci gën a def yitte ngir saafara problème yu mel noonu kon sëñ bi dañ lay bàyyi nga àddul ñu ci lool. waaw ah, jërëjëf sëñ Cheikh li nga laaj am na solo lool te laaj nga loo xam ne ñun waa tuuba lu ñu ñor la ndax dana baax nit ku ne euh, sooy dund di dund ci ak dal ci foo bëgg a dem dem daal dellusiwaat ci jàmm ak salaam. ndax li xew ci dëkk bi jamono yi moom moom doy na waar torop te bari na euh, doy na waar lool euh, ndax wàllu agressé yi moom bari na fi lool ndax li wax sànq rek ne fi nga ko foogoon ci biir Touba fekk na gën naa jege biir Touba ndax fii ci jumaa ji lu matu 30 mètres dañ ko fi def ndax man bu yàggul rek. def nañ ko fii sama soxna toog ci buntu këram yor téléphone foo xam ne moo diggante ma jumaa ji matut 30 mètres ñoo xam ne dañoo yor seen moto bi ñëwee kenn ki wàcc këf téléphone bi këf wala ko foqarate rek daal yóbbu téléphone ba muy loo xam ne nag daana ko dégg fu ne waaye daa léegi dafa bari Tuubaa ba nga xam ne euh, moom doy na waar loolu nag ñu ngi ñaan nag kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu dimbali si wàllu sécurité bi ndax jamono yoon jaaxle nañ ci lool jaaxle nañ ci lool. waaw sëñ bi lool moom wax dëgg yàlla doy na waar comme ni nga ko waxee ndax foog naa yéen boo leen ko dundee sax ci lay gën a yéeme ndax xam nga tamit bu dañ daan seetlu ne jumaa ji moom loolu daanu faral di am ndax xam nga li nga wax dafa yéeme ndax ñoom sax mën naa ne agressé wuñ dañoo ñëw foqatee fi jàmbur ndax xam nga ñëw nga ñëw ci buntu kër eh, daal di fekk as soxna toog ci buntu bi nga wàcc ndànk sa moto daal di ñëw fekk nit ki toog nga xëcc téléphone am daal di dem ba quelques mètres daal di ne borom jakarta bi ñoo ñu dem xam nga loolu nag moom moom vraiment loo xamante nii la doy na waar lool. waaye est-ce que bëggoon naa xam ndax am na yeneen doomi soxna yoo xamante nii ñu ngi ci dëkk bi te dund nañ lu mel noonu ndax am na fi actuellement à Touba. waaw suñu Cheikh loolu moom moom bari na fi lool ndax am na soxna soo xam ne ci waa kër sëñ Fall yi la bokk. waa ko sëñ Baara moom def nañ ko lu mel noonu fii ci koñ bi te bu yàggul dara rek eh, am na si benn commerçant boo xam ne jaay na ba wàcc wekkaayu ab saagam nga xam ne si la ay caabi mag lam liggéey lépp si la nekk ñu romb kaf ko yóbbu ko muy loo xam ne lu doy waar la ndax bu yàggul dara rek am na ku ñuy wax maam Cheikh moom itam def nañ ko lu mel noonu wala ñoom ñi ko dogale nag ñoom oto lañ yoroon fii ci sura jëf ko jëf ju mel noonu ba jot koo gaañ muy nag loo xam ne moom suñu xel dalatul daal moo tax nag ñu koy dénoncé bëgg ngir kilifa yi ñi nga xam ne ñoo ci euh, ñoo si war a wax ñu wax si ngir lool mën a saafara bu baax a baax. waaw loolu dëgg la te li nga wax am na solo xam naa di lancé waale autorités yi rek ñu gën a góorgóorlu ci ci loolu léegi yow ci sa xalaat yow ci sa xalaatu bopp lan nga xalaat ne moo indi insécurité bopp parce que loolu ñu ko gis souvent bariwu fi woon te gis nañ ne bari na léegi ndax ni nga ko waxee doomu soxna yu bëri dund nañ ko te loolu wax dëgg yàlla baaxut ci dëkk bi. sëñ Cheikh jërëjëf euh, loolu li tax mu gën a bari Touba euh, bokk na ci euh, mbedd yu lëndëm ndax Touba mën naa ne sax fenn leerut ndax bu ñuy wax fi leer ci Touba mooy lu mel ne pencum jumaa ji ak route nationale bi te loolu rek du Touba ndax kër sëñ Touba yi nga xam ne ñoo wër. jumaa ji ginnaaw kër yi yëpp ak ci ak lëndëm lañ nekk kon ak lëndëm nag fu mu am waxuma la euh, jël alal sax waaye leneen lu loolu mën a fa am ndax li ma wax sànq diggante jumaa ji ak ginnaaw ko Sëñ Fàllu gii wala ginnaaw ko Sëñ Abdoulaye borom dër bii dangay dem ba guddi nga gis nit koo xam ne day yor otoom ñëw ba ci lëndëm gi foofu mu gaare ko fa nekk te mook nekk te si biir mook ak jigéen ñoo nekk ci biir di fa jëf-jëf joo xam ne euh, méngoo wut ak dëkk bi te borom dëkk bëgguloo tey toxutoo mu sañ sañ loolu loolu nag doon loo xam ne lu ñu jaaxal la tey loo xam ne tax na suñu xel dëlatul li ñuy laase mooy euh, ñu fexe ba dimbale ñu ci ay làmp ndax marché occas bii moom it guddi kenn bu nu faa jaar ndax rond point bi si wetu barabu sëñ Saaliw bi tëli bi jëm noonu jëm maas occas foofu tamit dafa lëndam lool ak tëli gaar bu ndaw bi moom itam am na pot lampe mais lampe yi tàkkul waaw lampe yi tàkkul nag daanaka moo ñàkk ami lampe yam ginnaaw suñ fallu gi eh, amoon ay ay lampe pot lampe ña nga tax waaye nag ba mu gëjee tàkk yàgg na loolu it ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy fàttali ñi nga xam ne eh, ñoo yor wàllu woowu ndax boo dee xool kër si Alaaji Baara mbedd mu jëm jumaa ja foofu it guddi gi ñuy mel moo ñu wax sax ne Touba moom fenn leerut dañ ko masque masque boo xam ne daal da nga jàpp ne Touba nii la tawra fekk na tawra wu noonu fex ne ma defar route nationale bi moom ak li war jumaa ji. mën nañoo xam comme lu mel ni maire bi nga xamante ni mën nañ ne gestion dëkk bi ñoom ñoo ko yor ndax bu ñuy wax dëkk bi nag gestion dëkk waa maire bi ñoo ko yor est-ce que ñoom ñu ngi ciy def ay jéego ngir saafara lu mel noonu ci dëkk bi. sëñ Cheikh maire bi de. ñoom it ñu ngi leen koy fàttaliwaat bu baax ndax li nga wax it gisaguñ benn jéego boo xam ne def nañ ko si te ñu ngi leen di ñaan maanaam ñu taxaw ci bu baax ndax yi comme que ñun ay situwaay lañ yoo xam ne si dëkk bi leen dëkk te amuñu fu dul Touba te mënuñoo génn Touba dem fenn euh, dañuy ñaan ñu dimbale ñu ci sécurité euh, ak ci ay làmp gi leer ba fu mën a dem ba heure bu ne ñu mën a aw si ay mbedd yu leer nañ ñi ñibbi suñuy kër. maire bi it wax dëgg yàlla comme que moo fi ne te sëñ bee ko fi teg nee na ñu ñu ñu ñu ñu ñu ngi sàkku bu baax a baax moom itam mu dimbali ndax it ñun li ñun li ñu warloo ak dëkk bi ñu ngi sàmmoonteeg loola. li ñu warloo ak dëkk bi ñu ngi sàmmoonteeg loola ndax wax naa sànq ba tudd marché Ocass bii nga xam ne alal yu bare mi ngi fi te marché ba guddi nit du fa jaar li waral lool it mooy ak lëndam te nag agressation agressé lañ fi wax waaye nag lu raw loo mën a fi am. Eh, wax dëgg yàlla Touba moom dañ bu ñu naan la deuxième ville du Sénégal Touba la ñuy wax kon wax dëgg yàlla ñu ci seetlu yenn insécurité yi euh, du yoon kon xam naa appel boobu mooy li nga lancé maire bi rek xam naa dinañ dinañ ci bàyyi xel ñu fexe ñoom tamit comme que ñoom lañ teg dëkk bi ci seen loxo ñu saytu ko saytu koo xamante ni wax dëgg yàlla ñoom itam bu ñu dajeeg sëriñ bi duñu rus ndax tamit ku xam ne liggéey dafa jafe. te nag Touba nag wax dëgg yàlla moom ñu teg ko say loxo wax dëgg yàlla nga nga góorgóorlu ci daal ba yu mel noonu dootu fi am ndax ville boo xamante ni économie réew mi lu ci bëri fii la nekk ci Touba loolu wax dëgg yàlla seen devoir la ñoom ñu taxaw ci bu baax xam naa yaa yaakaar naa dinañ dinañ répondre ci sa requête li ma lay laaj mooy Touba tamit seetlu nañ fi ne bëri na ay doomi soxna ay doomi soxna yoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bi di ay borom doole xam ne suñ borom dénk na feeb yi nga xamante ni commencé nañ koo seetlu Touba ñoom ndax ñu ngi ciy def seen ay jéego ñoom tamit ngir gën koo jéem koo saafara ndax xam nga ku ne liggéey moom maire bi am nañ ci part de responsabilité waaye nag jàpp naa képp ku nekk ci dëkk bi te nekk leader leader d'opinion nekk borom doole yow tamit am nga ci sa part de responsabilité. maanaam Touba problème yi moo bari ndax tey bu ma waxee lii ëllëg ki ne mën naa waxaat leneen. waaye nag bu kenn ku ne féetee lu di wax fenn rek bu lépp saafara la day day day daal di mati ndax euh, tuuba sëñ Touba am na lu si ñaan te ala dana am comme ni wax sànq ci ci ci maire bi loolu dañuy ñaan yàlla Abdoulaye Ka moom mii fi nekk loolu sëñ ñaan si dëkk bi ñu fexante di ko soññaat bu baax li ko war li ko war ci dëkk bi mu mu gën see taxaw bu baax mu gën see tax bu baax a baax ndax. dëkk bi moom li ma wax sànq rek mu ne su mu ne su ko génn dem fenn mooy suñu tiitar ndax tuubaa daa doon dëkk boo xam ne kilifa yu bari guddi lañuy jóg di doxantu guddi ndax bu yàggul dara rek barki démb rek am na kilifa goo xam ne dafa doon doxantu fii ci ci koñ bi li soriwul jumaa yi dara ay nit ñoo ko dogale ba doo nga fi kilifa gu mag la ci dëkk bi te loolu li ko waree eh, mooy ak lëndam rek lëndam gi Tuubaa nekkee loolu nag ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si li mu waxoon sànq ci Abdou Ka mooy mu fexe ñu see jàppale bu baax a baax ba ba Tuubaa fu bëri leer ndax comme que Tuubaa comme que moom liggéey continuer ndax ëllëg day dem keneen ñëwaat fexe ba jëmmal fi loo xam ne bu ëllëgee keneen ko ñëwaat day mën a continuer loola waaw ndax it kenn ku ne loolu ngay ñaan bu ëllëgee boo fu jógee ñu xam ne kat yow yaa fi jëmmaloon lii. ndax yaa fi commencé lii ba bi ñëwee ba bi nit ñi ñëwee tegu sa loola di di dox kon Abdoulaye Kharka moom itam ñu ngi koy soñ bu baax mu te bañ a yàgg dara nag mu taxaw ci lii ñu koy wax ndax lii ñor lool waaw. gis nañ tamit fan yii nga dem ci ay média yoo xamante ni gis nañ nga dem fa di di lii nga xamante ni moo am Touba léegi ñu ñu bëggoon xam ndax yow loolu bi nga ko naqarloo après gis nga ci résultat wala mbir mi daa <laughs> continuer mel na meloon ba tey wala. Ah, jërëjëf. maanaam bu fekkoon biñ demee ci média yi saafarawu na duñ dikkaat fii waaw waaye nag duñ noppi mukk suñu waree wax dalan wax li ñu war li ñu war ndax lii ma fi lim lépp su ma ko mënoon duma ci xaar kenn te duma ci tudd kenn ndax kenn gënu maa bëgg dëkk bi kon nag euh, ñu fexe bay bay bay noppi rek te lu ñuy wax lu ne rek ñu di ko teg ci ak dëgg te di ko teg ci ak taalibe ah, waaw am na solo de <laughs> yal na yàlla nangu ñaan yi rek te comme ni nga ko waxee mu saafaro wax dëgg yàlla ndax li nga wax rek am na solo ndax Touba eh, ni nga ko waxee noonu la kilifa yu bëri guddi gi la ñuy doxantu ndax tamit ay kilifa lañ te ay borom njaboot lañ guddi gi ñuy doxantu di wër jumaa ji waaw di barkeeluwaale tamit léegi ñoom ñooñu nga xam ne ay kilifa lañ suñ génnee tey nit. ñu leen di finnaal ak yooyu xam nga loolu neexatul kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan rek comme ni nga ko waxee euh, waa maire bi def ci liggéey bu bu gaaw rek mu gaaw dañ ci dëkk bi benn yoon ndax dëkku Sëñ Tuubaa moom li nga wax rek sëriñ bi moom lu mu mënti ñaan alaa kulli loolu dina am kenn xamul nag ci yan loxo lay sottee waaye moom dina am bu baax a baax a baax solo te tamit euh, gis nañ ay kuréel yu ne ci dëkk bi comme kuréel Sëñ Modou Lo Ngab gi muy jiitu jiite nga xamante ni day sàmmoonte ak war may dëkk bi ñu respecté ko di safinatul aman ak tamit kuréelu euh, suñu am sa gi muy jiite muy xuddaamul xaddim tamit ñu leen di waaye euh, au passage ndax gis nañ liggéey bu am solo bi ñuy def ci dëkk bi ndax ay kuréel yoo xamante ni ay ci ay doomi Sëriñ Tuubaa la sosoo woon ñoom tamit ñu sàmm ndono mi ba léegi kon tamit dañ leen di ñaanal bu baax sëriñ bi gën leen a dëgëral waaye kuréel yooyu est que xalaatoo woon lu mel ni tey ñu gën leen a renforcer gën leen a may doole nga xamante ni tamit ñu xeex agression bi te tamit bëggoon naa xam est-ce que ñoom yëg nañ tamit lii nii ndax yéen da ngeen a jege jumaa ji lool te ay bu bunti kër sëñ Tuubaa rek ñoo wër jumaa ji te seetlu nañ ne insécurité bi de jour en jour day yokku waaw loolu bëggoon nañ nga nga dikk ci. Euh, waa dëkk bi moom Safinat Aman ñoom wax dëgg yàlla jàmbaar ran ndax lii leen war si dëkk bi lu ci baree bari ñu ngi koy def li nga xam ne moo leen tolloo ñu ngi koy def euh, di nuyu baax sëñ Muloo Ngaawu di ko jaajëfal te di ko wax ne liggéey sëñ Tuubaa boo ko def. Eh, danga nga jànkoonteeg lu ne da nga lu ne waaye nag da xam ne sëñ Tuubaa ngay liggéeyee rek eh, di ñaanit kilifa yi ñu fexee ñoom itam ñu gën leen a renforcer gën leen a dooleel gën leen fullaal bu baax ndax ñoom seenum liggéey am na solo lool ndax léeg ñu dugg foo xam ne sax ak di luqat loo xam ne sax gendarmerie police duñ ko def ndax ñoom ñoo gën a xam dëkk bi di di siyaar bu baax sañ am sax moom sëñ Abdou Lahat moom itam wax dëgg yàlla ndax kuréelam boobu ñoom itam eh, xuddaamul xaddiim ñoom seen taxawaay am na solo lool ci dëkk bi waaw ñoom itam ñu ngi leen ñaan bu baax te ñaan kilifa yi ak ñi leen war a dooleel ñu dooleel leen bu baax ba bañ ba li nga xam ne war na leen si dëkk bi dañ bëgg koo def ñu mën koo def ndax li am solo rek dëgg-dëgg mooy nit li mu bëgg a def mu mën koo def waaw kon nag ñu ñaan ñu ñu gën leen a renforcer bu baax. bëggoon tamit nga dugg ci lu mel ni wàllu force de sécurité yi ndax xam nga tamit Touba am na ay brigade bari na fi. te est-ce que ñoom ñoo ngi def ay patrouille ci wetu lu mel ni surtout lu wër jumaa ji xam nga yéen fi ngeen nekkee nii daanaka yéen mën nañ ne ci xolu jumaa ji ngeen dëkk ndax mën nañ ne ginnaaw kër Sëñ Abdou Borom Dër bi yéen a ci topp kon daanaka yéen ak jumaa ji benn ngeen dend ak kër Sëñ Fallou kon wax dëgg yàlla dina baaxtu aussi ñoom ñi def ay patrouille di wër lu mel ni dëkk bi di xool ñi nga xamante ni ay defkatu ñaawteef lañ ngir maanaam di jël ci ay mesures ndax xam naa loolu bu amoon aussi yaakaar naa dina dina dina gën a wàññeeku ci dëkk bi. Cheikh ndax li nga wax am na solo lool ndax li li wër jumaa ji wala biir Touba waroon nañ fu ñu mën a dox dajeeg police wala mari ñuy doxantu ci biir waane euh, da dangay da gis sax ndax jàpp naa loolu nag moo waral maam lii bëri si dëkk bi maanaam muy sàmba boo yi nga xam ne dañ nekk si dëkk bi taxawaalu. fi ñu ba si li wër ba si penco jumaa yi sax wala mën a fexe ba am nañ koy doxalee noo xam ne kuy taxawal doo fi taxaw kuy taxawal doo fi taxaw te nga xam ne police gendarmerie ñoom nag sëñ Abdoulaye moo leen fi indi woon ci ndigal sëñ Abdoulaye leen fi ñëwee woon te sëñ Mountakha mii tey mooy sëñ Abdoulaye comme que ñoom seen baat la lañuy diglu kon ñu ngi leen di ñoom itam ñu gën a taxaw baax ci ci ci ci wàllum sécurité bi waaw émission bi li ci des bëriwul sax eh, ñoo ñu koy signalé xam naa dañoo bëggoon comme li nga wax yëpp daanaka eh, nga xamante ni day dugg ci cadre defar dëkk bi ndax ku dégg ni ngay waxee xam ne wax dëgg yàlla dëkk bi ñor na la lool te tamit sàmm ndono li fi sa maam bàyyi woon tamit ñor na la lool ñu bëggoon a laaj la yow ci sa xalaatu bopp lan nga xalaat ne suñ ko defoon loolu duma ne dina jeex ci tuubaa wala ci wetu jumaa ji ñiy def ñaawteef yooyu waaye dina fi wàññeeku ba ñëpp xam ne wàññeeku na fi ku bëgg a dox heure bu la neex nga dox ko ci ci dëkk bi wetu jumaa ji heure bu murit sentir ne daa war a dem wetu jumaa ji siyaar doxantu fa dem fa te du xalaat ne man su ma fa demee kat diw sàngam mii dina ma faagaagal wala dina jël sama yef euh, loolu li si njiitu mooy ñu fexe ba police ak gendarmerie ñu fexe ba ñoom ñu renforcer leen bañ am ay éléments yu doy. ndax it boo fa defee police def gendarmerie euh, te amul élément yu doy it li nga bëgg dëgg-dëgg doo ko am loolu nag ñuy wax état ñu fexe ñoo renforcer euh, police ak di wax it euh, Safinatoul Amane gi fi nekk ñoom nga xam ne sëriñ moo fi teg ñoom itam ñu gën leen a bu baax te it police leen seen seen bopp ak gendarmerie ñu lëkkaloo doon benn ndax it comme ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex ak lu ñuy lu ñuy lépp Touba moo leen ñor. ñu gën a booloo doon booloo doon benn euh, Safinatou Amane euh, jàpp police gendarmerie police gendarmerie ñoom jàpp Safinatou Amane ñu lépp doon benn ñu lëkkaloo loolu bu ñu ko defee rek lu bëri dana saafaraw ak lu mel ni wàllum làmp yi ma doon wax loolu moom ñor na ma lool làmp yi si dëkk bi moom dëkk bi war naa leer nañ dëkk war naa passé fii euh, fi mu toll day mel ne Tuubaa yu njëkk ya ndax fi mu toll boo dee xool Touba fi mu toll nii ak ak population bu fi nekk ak liy dugg biir Touba ak waa Touba li ñu jëflanteeg li ñu war a jëflanteel ci ci ci ci wàllum àdduna ñu ngi koy def ba pare taxu gisuñu jëmbal fi dara loolu it ñu ngi ñu ngi ñaan euh, suñ mairie bi moom mi xam ne moo jox suñu diggante ak état ak it moom la ñu jëflanteel ñu fexe ba Touba am ay làmp yu leer nañ ndax fii si ginnaaw ko si Abdoulaye borom dër bi ak ginnaaw ko suñ fàllu gi ak gaar bu ndaw fu ne mi ngi leen lëndam këriis kenn mënu fee jaar lool nag ñu ngi ñaan nag ñu Abdoulahat Ka mu dimbali ñu si bu baax dimbali ñu si bu baax a baax a baax a baax. kon sëñ Cheikhouna wax dëgg yàlla ñoo ngi lay sant bu baax a baax émission bi <laughs> amoon na solo lool ndax jàpp naa li tubaab naan zone d'ombre lu bëri lu loo xamante ni lëntoon na leer na ci suñuy bët ñuy ñaan rek autorités yi ñoom tamit bàyyi ci xel bu baax xam ne ñoom lañ dénk dëkk bi te sëriñ bi buy laaj ëllëg tamit. mën naa ne ñoom ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk lu mel ni maire bi ak lu mel ni gendarmerie bi ak yooyu sëriñ bi dina leen ko laaj kon tamit ñu ni ko sëriñ bi waxee rek ñu gën leen a renforcer gën leen dooleel ba nga xamante ni dinañ xeex ak lool mu denc ci dëkk bi benn yoon. kon xam naa sëriñ bi émission bi eh, daanaka jeex na dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ko defee ñu yëkkati jataay bi ba beneen yoon. balaa maa tàggatoo daal lu ma fàtte woon eh, ndax Touba bari na si bari ñoo xam ne eh, dañuy dañuy dañuy nekk ci wàllum liggéey liggéey yoo xam ne liggéey yu amul doole la lu mel ne borom séeréer yi euh, ak it taximaan yu mel noonu mu ñu néew doole ñoo xam ne léegi dañ leen di finaal finnaal yoo xam ne bëggoon nañ it euh, police ak gendarmerie ñoom ñu am yërmande si ñoom du tee nag ñu def seen liggéey nañ def seen liggéey li mu waree waaye nag nañ am yërmande si ñoom ndax nit koo xam ne séeréer la yor di daw suba ba am na am na 3000 nga jàpp ko mu war a fay 6000 loolu du yërmande nañ si doxal yërmande bu baax euh, di tàggatoo di la sant bu baax sañ seex di sant euh, sëñ Bami bu baax di sant sëñ sëñ bi bu baax Serif ak ñëpp rek di di wax ne am nañ kontaan bu baax euh, lii nag commencement la rek ndax Touba li ñu fa wax bari na te bu ëllëgee bu soobee yàlla danañ lii ñuy wax danañ ci gën a indi ay firnde yu gën a leer. ndax danañ caméra mbedd yi nga xam ne moo lëndam yëpp def ko ci internet bi ñëpp gis ko bu fekkee li ñu wax saafarawul dara waaw ñu ngi siyaar siyaar baax sëñ Sidi mo sëñ Muntaxa di ko ñaanal tawféex mu yàgg fi loolu ndax moom li wax ne ko dem ma dem ko demul ma dem moom koo dimbale koo jàppale rek moom da dëkk bi dana changé bu baax wa kun muhisan lana min sarisi hasadin ma sarifam min wa sari hani wa salli yaa latif ya xabiru ak Seex Ibra Faal kon suñu seexu naa ñu ngi lay sant bu baax a baax ci émission bi nga xamante ni mooy seen jataay dalaloon na tey ñu ci doon waxtaanee insécurité bi nga xamante ni fan yi seetlu nañ ko ci dëkk bu tedd bi di Touba di dëkku sëriñ bi te wax dëgg yàlla leeral yi ñu ci indi aussi am na solo lool ñuy ñaan bu baax a baax rek euh, comme ni ma ko waxee woon sànq rek suñ borom saafara ko balaa yàgg ndax nag dëkku sëriñ bi moom nit war na fee mën a dox heure bu ko neex te du tiit ne man diw mi dinaa dajeeg moom mu jël sama lii wala mu faagaagal ma kon nag wax dëgg yàlla sëñ bi faal ñoo ngi lay sant bu baax tamit ci sa disponibilité ak sa bëgg lu baax ndaxte émission bi bi bi ñu ko waxee ne da bëgg ñu def ko wax dëgg yàlla def nga ci ay jéego yu am solo bañ xam ko ñu ji moo ñu jaral ñu jóge ba Bambey ñëw ba Touba def si émission bi kon nag wax dëgg yàlla ñoo ngi lay sant bu baax a baax dina ñaanal ndax xam nañ ne ku sàmm li sëñ Touba euh, bëggoon ci nga ne. te tamit li sa maam Cheikh Ibra Fall newoon muy ak taalibe képp nga xamante ni li suñ Modou Aminta doon wax naan ak akay li muy bëri yëpp ak amoon ak taalibe ci am solo te loolu ci lañ la xam kon nag ñu lay ñaanal bu baax a baax suñ boroom gën laa kàttanal gën laa dëgëral ci barke sëriñ bi ak xaside yi ba lii ngay daal décrier ci Touba muy insécurité bi mu génn fi ba daal xel yëpp daal ndax ni nga def rek noonu la kilifay def ndax su ji doxee ba gis loo xam ne neexu ko da koy defee ci manière boo xam ne ñëpp dañ ci mën a jot te tamit danga nga koo defee ci manière boo xam ne am na solo te laaloo kenn tooñoo kenn te loolu moo ci ëpp solo kon nag ñoo ngi yemale foofu émission bi di seen jataay di am ci seen télévision BCM News ñu koy def chaque 15 jours tey ñu daloon sëñ Cheikhouna Fall di sëtu Cheikhouna Fall di doomi sëñ Amdi Yaasin di tuubaat nag bu baax a baax ci toog gi ñu toogandoog moom ci kaw ndax caméra yeeg yooyu ñooñu koy imposer rek moo tax kon ñoo ngi yamale foofu suñu kàddu te di leen jox si euh, dox daje ci beneen émission seen jataay ak yeneen kilifa kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa